wala hawla wala quwwata illa billah alil azim allahuma salli ala seydina muhammad wasallim asalaamaaleykum mbokku jullit yaa mbokku taalibe yi dal leen jàmm seen chaîne youtube le Coran et ses secrets ñoo ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te du ko sàkku ceen tey nag mbokk yi dañ leen andil secret bu am solo lool sax secret bu yéeme secret boo xam ne ndax du yagul dara rek amna suñu benn mbokk abone bu ñu doon laaj daa bëgg secret buy dind liggéey motax ñu andi leen secret bi tay kep ku ko def buñ la liggéeyoon liggéey bi dina toj dina yaax inshallah pour kep ko xam da nga bëgg arsa bop ci pexam non ba ku la jema liggéey rek du jall inshallah allah bop ci beut lamiñ ak ci fan inshallah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 te bu leen fàttee aimé vidéo bi partagé ko daa am solo lool moo yaatal kër gi te moo ñi may doole yàlla na yàlla fay mbokk yi secret bi jëlee nañ ko fu wóor ni képp ku ko def nga sellal ko saxal ko incha allah di nga gis ay feex yu kawee si njort di nga gis coppite yu ama am solo incha allah sa dund secret yu secret bu baax la secret bu am solo loolu sax la bu leen ko négliger mbokk yi secret bi nag ñu ko jële situ yàlla bi di al alxaabidu alxaabidu nag boo xoolee mi ngi wàcc si téere alxuraan juróom ñeenti yoon maanaam neuf fois lañ ko tudd si téere alxuraan bi mu doon tur bu am solo lool sax moo tax te ñu jukki leen benn rekk ci ay secret secret bi nag mbokk yi da ngay jàng faatiha benn yoon nga jang astaghfirullah téeméeri yon jang salatu ala nabi 20 fois jang ya khabidu, 1000 fois nga dali ñaan sa soxla bo ñaané sa soxla bu nopi nga jang 3 salatu ala nabi mais dang koy def après la prière d'asr manam dang koy def après bo julé julik takusan la prière di 5 heures waaw arab nan ko la prière de asr dang koy def après bo julé julli takusan ba nopi pendant 11 jours successifs nga koy def nak dang koy def si fukki fan ak ben yo xamné do ko teubal dang koy enchaîner boko ko inshallah rabbi yalla sunu borom dana la protéger dana la ar dégg la si pehem non si beut lamb ñak cat si liggéey ndax àdduna bu ñu toll léegi dafa doy waar lool sax mbokk yi fii leen ñëw ak yéen beneen vidéo ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal jàmm tawféex ndax kontaan nañ lool sax seen gis nañu yéen a ngi abonné chaîne bu baax a baax gis nañu yéen a ngi partagé vidéo yi te gis nañu aussi yéen a ngi aimé vidéo yi moo tax di leen ñaanal gudd fan ak wér ak yee xewal yu yaatu yaatu incha allah. di leen rek ba leen am ay laaj yi leen yitte lool da ngeen ko bind ci commentaire yi ba leen bëggee si ay secret yoo xam ne dangeen bëgg ñu partager ko ak yéen ngeen ko bind ci commentaire dinañ leen tontu incha allah te bu leen fàttee abonné ci bi amee vidéo bi partager ko daa am solo lool moo ñi may doole te moo yaatal kër gi yàlla na yàlla fay wasalaam.